sëriñ Abdoulahi Fall Ndar sëriñ Abdoulahi Fall Ndar di kenn ci njabootu njabootuk maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine moom nag mu gane àdduna ci ñaari waajur yu sell di maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine ak soxna Faati Wadd sëriñ Abdoulaye Fall Ndar nag mi ngi gënee jamono ca ci atum 1896 bi sëriñ Touba Xadimu Rasul demee ci géej gi euh, ba ca déwén sa sëriñ Abdoulaye Fall Ndar euh, waajuram moo ko yar moo ko jàngal alxuraanul karim ak mboolem fànni xam-xam yi gën a siiw ñu daan ko jàngee ci yeneen réew yi moom sëriñ Abdoulaye Fall Ndar nag mu nekkoon ca Ndar ginnaaw loolu mi ngi tàmbulee tarbiyaam ci maam Cheikh Ibrahima Fall Babil Mouridine mottalee ko ci sëriñ Touba Xaadimu Rasul ndax bi sëriñ Touba jugee ci géej gi ba dem gànnaar jóge fa ñëw ca yéen Jolof ca la ko maam Cheikh Ibrahima Fall booleek ay magam ak lenn ci ay rakam ñu yut leen sëriñ Touba Xaadimu Rasul Jolof ñu nekk fa di liggéey ba sëriñ Touba gërëm leen ñaalal leen delloo leen maam Cheikh Ibrahima Fall Babil Mouridine ba ñu ñëwee maam Cheikh Ibrahima Fall téyewaat ko tarxiye ko def ci moom mbiram ginnaaw loolu bokk na ci ñi Serigne Touba Xaadimu Rasul yebal ñu dem guerre 14 18 ca France ginnaaw bi Serigne fal Fall magam solo soldat Serigne Abdoulaye Fall Ndar ak Serigne Bassirou fal ak Serigne Madou Fatma Fall ak magi taalibe yu bari ñoom la maam Cheikh Ibrahima fal boole woon jox leen Serigne Touba Xaadimu Rasul mu yóbbu leen ca guerre ba ba ñu dellusee Serigne Abdoulaye Fall Ndar ak Serigne Madou Fatma Fall ñoom la maam Cheikh Ibrahima Fall yebal ci Serigne Touba Khadimu Rasoul ak seen tëniya ba ñu demee Serigne Touba Khadimu Rasoul wax leen ne yéen ñaan ñii de am ngeen wusul te bis ni ki dara waratu leen seen diggante yàlla seen borom gannaaw loolu bi ñuy gas bi ngir liggéey ju jumaay Tuuba moom la maam Cheikh Ibrahima Fall yebaloon ngir mu jiite liggéey ba ginnaaw loolu bi maam Cheikh Ibrahima Fall làqoo Serigne Abdoulaye Fall Ndar dafa dal di topp ci magam ànd ak Serigne Moustapha Fall mi njëkk doon xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall jox ko boppam di wéy ci ndigalam ginnaaw bi Serigne Moustapha Fall mu jokkuwaat ci Serigne Mokhtar Fall ñaareelu xalifa jox ko boppam di wéy ci ndigalam ba mu làqu ci 1954 ci la Cheikh Abdoulaye Fall Ndar daal di toog xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine daal di jóg dem ca Serigne Fallou Mbacké ñaareelu xalifa Serigne Touba Khadimou Rasoul daal di koy jox boppam jébbalu ci moom ak mboolem ku ko yaakaar daal di laxasaayuwaat ànd ak Serigne Fallou Mbacké ñu taxoo ci mottali ndigalu Serigne Touba Khadimou Rasoul yi muy liggéey jumaay Touba Serigne Fallou Mbacké daal di koy yebal carrière mu daal di woo mbooleem njabootug maam Cheikh Ibrahima Fall ak mbooleem ku yaakaar maam Cheikh Ibrahima Fall nee nañu ma fekk yeex mu woote ko diirub fukki fan ak benn Serigne Abdoulaye Fall Ndar ànd ak Serigne Fallou Mbacké ba jumaa ji àgg mu daal di koy booleek joxe addiyaam ci saa su ne ak ay ndogoom ak ay tabaskeem lenn daawu ci manqué ginnaaw bi Serigne Fallou Mbacké làqoo mu daal di dem ci Serigne Abdoul Ahad Mbacké ñetteelu xalifab Serigne Touba Khadimou Rasoul def Mbacke ànd ak moom jébbal ko boppam sëriñ Abdoulahi Fall Ndar moo tabaxal sëriñ Abdoul Ahad Mbacke euh, këram ji ci jumaay Touba moo ko sancal dëkk bi ñuy wax Touba Belal daana ko jox addiyam ak i ndogoom ak ay tabaskeem sëriñ Abdoulahi Fall Ndar moo tabax jàkkay maam Cheikh Ibrahima Fall ca Mirina Fall ca Njaareem sancoon na ay dëkk yu bari def fay daara di tarbiya ak mbooloo bokk na ci kër Mangaari ak kër Demba ak Busnaax ak Xabaan Serigne Abdoulaye Fall Ndar amoon na kër Ndar amoon na kër Thiès ak Njaareem ak Mbàkke Bawal ak Tuubaatul ak daaray nguy génn sëriñ Abdoulaye Fall Ndar doonoon na ku yàlla may baatin loolu muy boroomi xar baax di ko jubook yàlla di ko am ngërëmal sëriñ Touba xaadimu rasul ci lu wér amitam Ibrahima Fall waaye juróom amitam ngërëmul magam yëpp ak mbooleem waa kër sëriñ Touba yëpp doonoon ku jubook kilifa diine yi daan jëflanteeg waa nguur gi ci wàllu àdduna doonoon ku fonkoon taalibe yi daan leen dimbali di leen yar di leen jubbanti di leen xiir ci liggéey ak njub saa su ne sëriñ Abdoulaye Fall Ndar sëriñ Modou moom la defoon jëwriñam mu déggal ko loolu sëriñ Abdoulaye Fall Ndar daanañ ko wooyee Cheikh Jili Fall sëriñ Abdoulaye Fall Ndar mi ngi wàcc ab liggéey ci këram gi ci njaareem Medina Fall ci atum 1975 ñu denc ko ci Touba ci wetu maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babul Mouridine sëriñ Mouhamadou Moustapha Fall ñu gën koo xam ci sëriñ Modou Abdoulaye Fall Ndar moo ko njëkk a wuutu sëriñ Abdoulaye Fall Ndar yenn sunu borom yokk ay leeram te tas ñu ci barkeem.